te olof nee na li ci maam sëta koy jël sëriñ seex njaay njare nag sëriñu lasraar la boo xam ne dina yëngu ci wàllu seet ci listixaar te nee na fu waay mën di nekk ci àdduna boo ko woowee dina la seetal wax la lu la kenn mosul wax ci sa dund waaye nee na ma am na cangat yoo xam ne cangatu njara lañ koy wax cangat googee lu ne la mën ci àdduna waaye tamit nee na ma am na ndombo njare gu mu yor ndombo googee nag képp koo xamante ni da ngay lijjanti ay kayit rawatina ñi nekk ci bitim réew wala ñi nekk ci réew mi di yëngu ci politique ndombo googee ku ko am dina la musal ci cat ba noppi aar la may la mboolo sëriñ bi tamit nee na dina faj feebar yi sonnal askan wi yépp moo xam néew kattan la wala imorid ndoxum siti ak feebar yu ndaw yooyee nee na tamit dina yëngu ci wàllu càngat wàllu rabit dina ci yëngatu wàllu noobit sëriñ Seex Njaay njare dina ci yëngatu bi nee na ma képp koo xamante ni tamit da ngay football bëgg a signé boo ko woowee am na ñaan yu mu la ca mën a defal sëriñ bi nag ku ko bëgg a gis ma nga ca cité Aline Saw waaye ku bëgg a jàkkaarloo ak moom tamit moo xam whatsapp la wala appel numéro baa ngi nii 77 460 47 36 ma baamtu ko 77 460 47 36 loolu mooy numéro Serigne Cheikh Ndiaye Njare ku jokkoog moom rek bu leen yàlla dëppalee di nga ci am lu kawe sa njortu. ñu door fi de presse bi dooree ko stade yéenekaay ñancoo Sadio Mané Iliman Ndiaye la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa diw bii de mën na indil lu bëri équipe nationale bu Sénégal offensivement maanaam ci attaque ba ñaar ñii mën nañoo indil équipe nationale bu Sénégal lu bëri loolu la surnal bi xam le ndax ñaari match yi nga xam ne moom la équipe national bi mujj football ñoom ñaar dañoo départ titulaire te loolu nag mooy yoon bu njëkk ñaar ca kaw ñuy doxal te ñaari match yooyee yépp def nañu ca jaloore waaye journal bi yemul ci wax ko rek dafa jël xalimaam dem laaj ay expert maanaam ñu seen xam-xam màcc ci wàllu football nee na Sadio Mané nag su fekkee ànd na ak Iliman Ndiaye statistique tigam dina yokku maanaam jaloore ji muy def ci terrain bi dina yokku ndax Iliman Ndiaye artiste dëgg la li muy def mën ko beneen expert bi nee na Mané nag boole nañu ko ak Iliman ñu doxal waaye bu Ismaïla Sarr ñu nekk ñett ca kaw dinañu doxal ndax ñaar ñi mën nañu la ñuy def te Ismaïla Sarr it mën na la muy def kon ñoom ñett sunu leen boolee ci attaque ub équipe nationale bi dinañu doxal Boulaye Dia tamit mi ngi ci journal bi moom nag jamono jii buteur dëgg la ci équipe nationale bi ndax ñaari mat yi ñu mujj amal yépp dafa dugal kon Boulaye yeewu na te attaquant dëgg la Aliou Cissé tamit mi ngi ci journal bi moom nag ku miin éliminatoire CAN la ndax équipe nationale bu Sénégal bi mu ko yore ak tey jii qualifié na ñeenti yoon waaye saa sunu suñu ca duggee nag bu ñu yeggee ci ñeenteelu bëccëg bi maanaam quatrième journée ci lay qualifier équipe nationale bu Sénégal te ñeenti qualification yooye li mu ca jongante ci ay match mi ngi toll ci vingt deux maanaam ñaar fukk ak ñaar am na ca fukk ak juróom-ñeenti ndam maanaam dix neuf victoire ak ñetti match nul kon Aliou Cissé min na éliminatoire loolu la journal bi le ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futurs Médias fekk fa record yéenekaay Habibou Diallo la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa journal bi nag da koo samp laaj ne ko dafa ñëw jël ci revanche am ci équipe nationale bi am déet li ko waral moo di woowuñu ko woon ngir mu dem ca coupe du monde ba waaye moom nee na amul benn revanche boo xam ne moom lay jël si ci équipe nationale bi li taxoon demul ci coupe du monde bi tànneefu Aliou Cissé la moo xooloon gone yi ko doy tànn leen yóbbu leen ca coupe du monde ba nee na loolu moom yoonam nekku ci moom gëm na boppam te ñëw na ngir jàppale équipe nationale bi su ca noppee day delluwaat ca Strasbourg ngir doxal waaye ñëwul ci équipe nationale bi ngir jël revanche am loolu la Habibou xam xamle ñancoo saajo Mané tamit mi ngi ci journal bi moom nag match yi di ñëw këlëbam di ba Bayern de Munich am ko ku yebu na nga xaar ñancoo Sadio Mané ci wet yi maanaam ca excentré ba ndax Thomas Tuchel mi leen di tàggat li mu bëgg moo gàncoo Sadio Mané beneen bi mu teg fa le roi Sané wut benn attaquant boole ko ak ñoom ñu doxal xam ngeen ne ñancoo Nagelsmann da ko doon pointeloo te loole neexu ko woon waaye Thomas Tuchel li mu bëgg moo di football loo ko excentré mu doxal su naal tamit ñëw na ci làmb ji sénégalais yépp di xaar war a dox ci diggante forsa ak Franc combat boobee nag ki ca tey ji moo di forsa Forza mi ngi artu Franc nee na ko komba bii ma war a jàkkaarloo ak yow li ma bëgg moo di am ca ndam te sama bakkan laa ci teg Forza moo xamal kàddu yooyu Franc komba boobu nag dina tàng dina métti ci diggante Fass la ak Parcelles ñu jugee Sénégal wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Marcus Rashford le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa moom nag xaalis bu weex tàll lay laaj waa Manchester United ngir yokk contrat am toog foofee doxal ak club boobee un an mois moo ci des manam at ak ñeenti weer waaye lim bëgg moo di ñu fay ko xaalis bu bari mu door a yokk contrat am journal bi nee na lim bëgg moo di ayu bu ne maanaam semaine bu nekk ñu jox ko cinq cent mille de livres sterling loolu nag bu ñu ko xaymaa ci franc CFA mi ngi toll ci trois cent soixante douze millions ayu bés bu nekk loolu la bëgg di jot comme salaire dooro yokk contrat am dooroon nañu waxtaan nag ngir yokk contrat waaye mbir ma dañ ko tegandeegum li ko waral moo di club boobee di Manchester United ñi ko moom di famille Glazer dañu koo bëgg a jaay moo tax waxtaan boobu ñu dooroon dañu koo tegandeegum waaye Marcus Rashford li mu bëgg moo di ëpp salaire ca club boobee jamono ji David De Gea moo ëpp lu muy fayeeku waaye moom li mu bëgg moo di ñu fay ko xaalis bu bari mu yokk contrat toog foofee doxal ci fàttali moom saison bii ñu nekk moo boot waa Manchester United ndax dugal na lu toll ci vingt-sept bit maanaam ñaar fukk ak juróom-ñaari bit jamono ji ma ngay doxal ànd ak Erik ten waaye li mu bëgg moo di ñu jox ko xaalis bu weex tàll mu yokk contrat toog foofee doxal ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay Ancelotti le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa at mi yépp de ñetti match yi moo gën a am solo ci ëllëgu Carlo Ancelotti ndax ci lay mën a amee yaakaar ngir des ci Real de Madrid waaye ci la ñu ko mën a dàqee bi ci njëkk moo di retour coupe du bi ñu war a fekki Barcelone ca Camp Nou Sportivo ca match aller ba nag Barcelone moo fekki woon Real de Madrid gañe ko benn bal ci dara match boobee waa Real de Madrid ànd ak Carlo Ancelotti li ñu bëgg moo di am ca ndam éliminé Barcelone ba noppi yaakaar jël coupe du roi bi suñu ca noppee nag ki ñu jàkkaarlool moo di Chelsea mu soxal Ligue des champions li ñu bëgg moo di ñaari match yi muy aller ak retour ñu am ca ndam ngir mën a dem ca demi-finale ba wuy di am yaakaar jël seen fukk ak juróomeelu Ligue des champions waaye su fekkee ñàkk na ko ñàkk coupe du roi bi mën nañoo bañ a jël benn coupe ci saison bii ñu nekk te loolu nag su fekkee am na rek mooy dàq nañu Carlo Ancelotti waaye Real de Madrid nag ñoo ngi wéy ba léegi di am yaakaar ci Liga Santander bi li ci des bareetul fukki bëccëg ak ñaar des douze journée waaye ñoo ngi yaakaar miracle ba léegi li ñu bëgg moo di foqati Liga Santander bi ci waa Barcelone naam du yomb waaye waa Real de Madrid ànd ak Carlo Ancelotti ñoo ngi wéy di am yaakaar ba léegi loolu la journal bi xam xamle ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Bellingham la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa waa Real de Madrid de duñu ca def lu weesu cent millions d'euros naam bëgg nañu gone gi waaye lu ëpp cent millions d'euros noppee guñu ngir def ko ci Bellingham naam gone gi la muy def mën na ko lool waaye ab milieu de terrain la Real de Madrid nag yemul ci moom képp ne moo bëgg Bellingham club yu mag nekk ci Angleterre dañu ko bëgg mën nañu caa lim Liverpool Manchester City ñaari club yooyee dañoo bëgg Bellingham waaye Borussia mën gi nga xam ne fa gone gi nekk ñoom it noppeeguñu ngir teqalikoo ak moom li ñu bëgg moo di mu fa contrat bu bees tàq toog foofee doxal ca Barcelone moom jamono ji coow li nee na kuru li ko waral moo di papay Ansu Fati mooy yëkkati kàddu yu ñagas teg ko ci waa Barcelone nee na sama doom di Ansu Fati cir bi mu yeyoo ci Barcelone joxu leen ko ko su fekkoon man mii la damay jugee ci club bii di Barcelone Buri faati di Papa Ansu Fati moo yëkkati kàddu yooyu. ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Ansu Fati la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa. kii wax nag moo di papaam dafa mer ba futu moo tax journal bi nee na mbir mi de dafa mujj jéggi dayo yëf yi dafa explosé ndax bàyyu Ansu Fati yekk na lu mel ni xamee waa Barcelone nee na joxuñu cër sama doom te su fekkoon man la damay jugee ca Barcelone dama mer ba futu nag journal bi nekkoon lu tax nga mer mu ne sama doom munumaa nangu mu ne ci club bii ñu koy may ay minutes yu néew ndax Ansu Fati li muy football bëriwul li muy toog ci banc bi moo ëpp loolu moo ma merloo nañu ko jox gëdd gi mu yeyoo ci club bi waaye club bi nag waxtaan nañu ak Xavi Xavi li mu leen tontu moo di Ansu Fati na ma muñal nag dal xaar fan yii di ñëw yëf yi mën naa soppeeku muy futbal di am minute yu bëri loolu la Xavi xamal waa Barcelone waaye papam mer na ba futu journal bi nee na mbir mi dafa mujj jéggi dayoo. ñu jugee esport jël Mundo Deportivo Inigo Martinez Gundogan Aubameyang la journal bi fësal ca wu njëkk wa ñett ñii de Barcelone mën na leen Alvaro li ko waral moo di ñoom ñett ñi ñëpp noppi nañu ngir dem ca Barcelone bu dee Inigo Martinez moom am na accord principe maanaam juboo na ak waa Barcelone ngir bu saison bi jeexee mu jugee ca Athletic Bilbao dem jàppale leen su fekkee Barcelone munu ko en enregistré sax moom noppi na ngir xaati xaatimal ko contrat ba noppi able ko saison boobu bu jeexee mu door a ñëwaat ca Barcelone ndax moom li mu bëgg moo di football ca Barcelone muy unigo Martinez keneen ki moo di Gundogan moom kontraam day waaj a jeex ca Manchester City te daanaka juboo na ak waa Barcelone ngir jógee ca Manchester City dem ca Barcelone jàppale leen keneen ki moo di Aubameyang moom nag contrat bi ko lëkkale ak Chelsea jeexagul waaye nekkinam foofee dafa mitti lool duñ ko football moom li mu bëgg moo di waa Chelsea dagg contrat am te su fekkee dagg nañu ko su ko Barcelone bëggee mën nañu ko am gratuite kon ñett ñi Barça mën na leen a am te du def ci ñoom benn euro loolu la journal bi xamle ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Juve le journal bi fësal ca wu njëkk wa ñoom nag seen mer mi ba léegi wàccagul ginnaaw bi ñu nangoo ci ñoom fukki ak juróom li ko waraloon moo di njub lang yi nga xam ne doon nañ leen ko jiiñ mu jëm ci niñ doon doxalee ak yeneen club yi loolu moo taxoon ñu nangu ci ñoom fukki poñ ak juróom waaye mbir mi nag jeexagul ginnaaw bi ñu noppee ci lool ci li ñu dugg moo di salaire yi nga xam ne ñoo ngi koy fay gone yi jamono ji ñoo ngi koy càmbar te balaa yàgg dinañu ca am ay xabaar loolu moo tax jamono ji waa yuufe seen xel dalul loolu la journal bi xamle Totti tamit mi ngi ci journal bi moom nag yàgg na ci AS Roma nekkoon na fa capitaine ay jamono ci lu yàgg mooy wax nag ci José Mourinho nee na caabi AS Roma José Mourinho moo ko yor kon njiitu club bi nañu ko fonk téye ko ndax mi ngi def ay jaloore ci club bi waaye Kvaratskhelia ak Raphaël Leao tamit ñu ngi ci journal bi ñaar ñii nag kenn ku ne yaa ngi doxal ci wetu càmmoñ gi ñu la xamee maanaam ailier gos bi su fekkee waa Napoli ñoo jël Serie A bi muy Scudetto bi ak liggéeyu Kvaratskhelia nga ca su fekkee waa AC Milan ñoo ko jël liggéeyub Rafael Leao moo nga ca ndax ñoom ñaar ñii kenn ku ne yaa ngi doxal ci wetu càmmoñ gi ñu la xamee ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Olivier Giroud ak Angel Di Maria la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ñaar ñii dañuy des ci Serie A bi ba atum 2024 bu dee waa AC Milan ñoom juboo nañu ak Olivier Giroud dina yokk contrat ba atum 2024